tey dañu Yewu gendarmerie ñew set siñu commandant bu légion gendarmerie adjoint bu commandant légion gendarmerie bu kaolak euh, lui Camara lui mo euh, mo fi ñew ñet auto gendarmerie ñew nenañu gouverneur mo leen yabal gouverneur tamit ministre Ibrahima Sy moko yabal yebal Ibrahima Sy boobu nag na ko xam musiba narou laay la pour Sénégal kilifa bi kilifaa ngi nii bu matul kilifa nit a ngi nii bu am feebaru xel Ibrahima Sy ministre Ibrahima Sy ministre bu joxe ndigal nan nañu màggale fii suñu centre bi journée mondiale santé mentale bëccëg bu ñu jagleel ci àdduna bi yëpp mbirum feebaru xel ñu def ñaari réunion ministère la santé moom ministre mu bind gouverneur bu Kaolack ne ko ci centre bi laa koy defee ba ba ci mujj gi ministre bi ci boppam daal di génn ci ay waxam weddi ci ay waxam daal di cent bi jël conseil conseil départemental bu Kaolack ne nag man en ce moment naa ñàkk ful la ñëw wuy si ko foofu noonu man naka ko ñëwuma waaman man lan laa fay def koo xam ne nii kàddoom gëmu ko centre bii bi enquêteurs yi ñëwee ma dalal leen ñëw nañu ma dalal leen ñu laaj ma ma tontu leen nee na bëgg nañ xam centre bi fan la bàyyeekoo historique bi fan la bàyyeekoo ma wax leen lépp génne sama kayit jox leen ne leen ñun ñoo ñaan terrain bi Ibrahima Bey bu Kaolack maire Kaolack yàlla ko yàlla yërëm mu may ñu terrain euh, président Ablaye Wade recevoir ma en 2002 mu tabaxal ñu Ablaye Wade en 2017 en 2000 en 2023 delloo ñu sant bi xam ne dañ ko nangoon nañ ko nangoon suñu loxo moom président Macky Sall moom président Macky Sall ñu laaj man ndax euh, ministère de la santé def na fi xaalis ma la ministère de la santé joxuma ñaar dërëm joxuma dërëm ndax jox la personnel ma joxuma personnel bagage yi fi bagage camion la ngeen dem li cinq heures tay dañ ma convoqué cinq heures lañ interpellé le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye le premier Ousmane Sonko li xew Sénégal jamono ah def Ansoumana Dione ku ko sargalul ku ko gërëmul wala ko sonal nga ñëw rek ne am convoqué naa la 17 bu ma demee lan lañ may wax mbaa duñ ma téye sax ci lan lañ may téye kër gi suñ kër la association bee ko moom nous sommes dans un état de droit am léegi Sénégal léegi buur moo fi nekk déedéet moo tax président Diomaye fay na jóg ci boppam Ousmane Sonko na jog ci boppam balaa seen ministre bii di dugal ci guuta Ibrahima Sy dama koy répété fii ñu dégg gàcce la pour Sénégal man maa signé contrat en deux mille vingt ci ministère de la santé ñu ne ma ma conseiller en deux mille vingt trois dégg euh, en deux mille contrat boobu ren jii du ma ko signé du ma ko renouveler parce que ñii ma gis nii fii dafa ëpp seen bët bi waaye nag nañ tegg seen bët ci suñu kër gi bañ koy dox ay ndaw la ñu ànd koog fulla ànd koog fayda ba fii ñuy wax ni ñu ànd ceeg fulla ànd fayda. Ansoumana Dione boo ko convoqué gendarmerie pour lan laa wax moo tax nag acteur politique xam bépp homme politique bu nekk ci réew bi na ko yëg bépp kilifa na ko yëg lan la ñu nar ci man bu fekkee ne dañuy tere ku liggéeyal ñu amee feebaru xel nañu ma wax bu fekkee ne bëggatuñu ñun ñi def lu baax na nañu ko wax waaye nag du kenn laa wax ku ñuy tere def lu baax kuy song Ansoumana jon kuy song Assam dama koy wax ba mu leer pour nga am ci ndam da ngay fay jant bi ba pare da nga naan ràpp jant bi ba jant bi fay nga doog am ndam sama kaw ministre Ibrahima si dafa daanu ba xalangu dafa gore di dafa def yëfu xale ku bind ba pare gor ca wax ja man gor laa Ansoumana jon cinq heures yàlla nañu yàlla may fekke ak tal dinaa wuy ji gendarmerie déglu leen lan la ñuy wax man xaw ma sax lan lañ may doye gannaaw dan na gouverneur moo ne day laajte tontu naa leen lan lañ may convoqué na ko àdduna xam sama avocat yegugul ministre de la santé bu fekkee dafa bëgg ay information na parce que bu dee mooy ministre de la santé fi bokkul ci ay service am ko enquêteur nous sommes une association nous sommes privés la lañ fi def convocation bi pour lan la wax motax dina dinaa wuy ji xam nak lan lañ may doyee après nee naa leen fekk comme bagage bo leen indé camion légui légui légui légui ma yabal leen bala ngeen di génn sax ñu ne ma non loolu tax ñoo jog kon à part loolu lan moo lan moo leen taxu ñoo kon benn kuréel la boo xam ne division de la santé mentale ñoo ko créé seen bopp ne benn regroupement d' association en santé mentale ñu tuddee ko Reposam te kooku wax loolu benn yoon lañ koy dégg ci at bi mooy journée mondiale santé mentale bu weesoo kenn du ko déggati te mënu laa wax moom kooku doon wax noonu Ablaye géey boobu doon wax loolu ci lan la nekk xanaa boo naan nañ delloo da naan delloo ko diw donc tey loolu wax bu yàqu la gis nga fii fii c'est pas parce que am nañ changement de régime que ay nit mën nañoo jéem a tante yoor seen loxo pour ñëw lekk ci ndab bi ndab bi Sénégal ko moom te ñu ngi leen ko yekkal ministère de la santé mi ngi ci am wàlla parce que ñoo ngi fay district sanitaire bu Kaolack 5000 francs par consultation yi fay fii malade ñoo la jox añ ndékki ak reer di jënd seen ay garab pharmacie ana ministère de la santé ana ñooñu noonu di wax xam nga nit su fekkee ne liggéeyuloo nga bëgg daaneel ki kii liggéey da ngay sonn ñun duñ ay noonu kenn. Sénégal barki démb la ñu woo ci benn table ronde fii ci Dakar ci Afrique ñu tànn sama suñu kër gii di centre Ansoumana Dione ñu tànn ko comme model de développement en Afrique amul benn kër bu ñuy fajee feebaru xel te du doo fay dërëm fii rek la amee kon lu mel nii ñun ku ñu sargalul. ku ñu félicité wul dañu war a bàyyi seetaan ñu